حبلي حدالة في حقلي وفي حملي وفي مقالي فعن طلحة رضي الله ولتكمل حقدي وعلمي وسعي وارفع اليوم كلها يا معين سدني يا فتاه كل يوم سحادة وبي بسر خومي بركة الشيخ القديم بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جينا بيني سنتي سنو ربي تبارك وتعالى di julli ci mustafa alayhi salatu wa salam di sant cheikhul khadim sunu yaakaar tey ak ëllëg ñu ngi ñaanal baax Seex Muhammadul Muntaxa xafisahullah wa raahu ñaan yalla sunu borom mo gën ko fa yàggal lool de wéral ko ba yeenam islam sunu borom dafa ko katan ak ko wër mu def ko nam ko sobe ta ànd ko mbolem jullit ñep góor jigen ma mag a ndaw waaye noonu lañ ko ñaanale mbolem buntu kër njabot cheikhul khadim yëpp ak mbolem buntu kër talibé cheikhul khadim yëpp goor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi bàyyi kenn di ci xaasal bu baax eh, borom barab bu tedd bi bokk ci njabootu sëriñ bi di sëtub sëriñ bi kenn rek dox diggam ak sëriñ bi ñu di ko ñaanal bu baax sa borom bi tabaaraka wa taala yàggal ko fi lool te wéral ko ba yéeneem ji mu yéene liggéeyal maamam mu defe ko nam ko bëggee te ànd ko mboolem ku ko yéene ak fa ab julli mën a nekk waaye noonu lañ baax mboolem ñi nga xam ne ñoo ko nekkal ci kër gi ku dala ci directeur bi nga xam ne mooy Pape Amadou Diouf mi nga xam ne mooy directeur général bi ak personnel bi nga xam ne ñoo ne ci kër ci yëngu ak mboolem technicien yëpp bay wonu kenn ñu jël nuyu bi seeti ko te ci loxol suñu jaxate mi suñu Mamadou jaxate mi jàkkaarloo di ko siyaare bu baax a baax ak ñu ne ci ñëpp waaye di nuyu mboolem auditeurs yi ak auditrices yi nga xam ne ñooy saxoo ko safoo di déglu seen rajo bi di faw seen 90 point 8 rawat na seen émission bii di di émission bu yam àll bu jot japu neuf heures jàpp vingt et une heures mu mel na xaw nañoo sax retard ay simili yoo xaw a takk waaye xam naa barab rek bi ñu eh, mu eh, bi war indi xawoon a yéex waaye ñoo ngi ciy baax baax baax waaye di leen baal bu baax te di leen ko mu di len ndokkeel bax ci wéru tedd yi nga xamné dugg nañ ci ak bismillahir rahmanir rahim way ñu genn ci ak alhamdulillahi rabbil alamin di sawar ramadan mubarak ñaan yalla sa borom bi yalla nañu yalla nangul liggey bi te fulani ko ba fu kenn xam ni tiyaba je tollu mo laqan ko fu yaq egul ba ëlëk yamul xiyam bu nu ak mom mu sant nu gëreem nu tay koor gi yalla bu ngi sun koor gu mujju yalla nañ ko ay at yu bare bare té at mu ñew rek ñu gën diko man di xéewal di gëna bari yalla man na ko tëliwu dara waaye ñu ngi nuyu baax auditeur yi nga xamni ñoy baye xel seen jotaay bi auditeur yépp ñu ne ci biir dëkk beeg bitim dëkk beeg biir réew meeg bitim réew ñu ne topp ci internet beeg ñi nga xamni ñoy def sunu FM ak ñu nuy baye xel ci mbolam eh, xéeti organe yépp di leen nuyu baax baax di leen ñaanal yalla sa borom bi doli seen xéewal doli seen katan doli seen wër guddal fan yi ci ba yéene ji nga xam ne nañ ko liggéey yalla ci lislaam ji suñu borom may len katan ban def ko len sop ñu ñu nuyu auditeurs yëpp waaye di ci beral bax sunu wajuru bok serigne Ousmane Diop di sunu bay di sunu wajuru sunu serigne sunu lepp di ko ñaanal bax sunu borom guddal afanam e te ko delo ko sagom ak mbooleem wa kër ga sunu wajuru ya fa nek yëpp bay woon kenn sunu mam sunu soxna yi soxna ñu xawa ñak ki ga soxna nek soxna de ñu ko ziar bax bax waaye di ziar sunu wajuru sunu su diop momit ak wa kër ga bàyyi kenn ñu soxna jeeg mboolem xale yi kenn di nuyu soxna Ami Sylla bay Fall Serigne bu dogal se soxna Jaara diko ko ziar bax a baax waaye ñu waxe mbokk yi seen musa mosoo benn rahim nee gis ngeen bi ñu duggé ci wéru koor gi dañ ko xawoon sansé heure bi diko ko def ak ci yoreeru mel nak indi war nañ émission bi ci waxtu yu baaxu am muy 19h japp 21h ñu ngi nuyu bax Serigne Habib wad di sunu Serigne nek ba diwaanu Mbengue dina bàyyi xel waye nuyu sunu wajur Serigne Serigne ibrahim wad mi nga xam ne mooy xam si sama sàmm ñaan su borom guddal afam te wéral ko ak mboolem jëbal seen sama Xariwaat yëpp ak mboolem taalib yi di leen ndokkeel bu baaxa baax ci bis weer wi ñu genn ak bis yi nga xamne ne nañ ko di bis yo xamne ne bis lislaam la euh, niñ ko xewon rek ci weer wi ñu nekk wala weer wi ñu genn di ramadan mubarak ñu dugg weeru sawal di weeru korété day baax nit ki nak bu duggé ci benn compétition li wax compétition moy binu nu waxé né kutiba alaykumus siyam kama kutiba an las min xablikum laxalakum tàqoona muy yàlla wax ne yéen jullit ñi nga xam ne gëm ngeen ma man yàlla maa farataal ci yéen koor comme ni ma ko farataale woon ci ñi leen jiitu waaye sant leen koy digaleen ko comme na ma ko digale woon ñi leen jiitu woon léegi koor googu nag ñu defe ko ñu ne ko suñu borom digg woon ñu defe ko nin ko manee suñu kemtulaay kàttan góor-góor la ci suñu kemtulaay kàttan ndax yàlla daa wax ne teguma kenn lu mu atnut waaye doomu aadama nag comme yàlla ko bind ci ci ak lompoñ mu doon koo xam ne ak daxiif la al insaanu daxiif nga xam ne dafay dafay lompoñ mooy yu bari day daw day day day day bëgg te du mën a am ay xeeti gàllankoor ay xeeti feebar di ko dal yu bari ba dana ci lënkalu ba nam war a jaamu dëgg dëgg dëgg xàq xaba du ko man waaye nag mu def ko kemtulaay kàttan ndax dana wax ne xàqa tuqeetihi wala tamatun illaa wa antum musliman bu fekkente te dëgg dëgg ji mënut amit nga def ko masta tantum mooy sa kemtulaay kàttan kon mën nañu wax ne comme defee nañ ko ni nga ko manee bi ñu ko defee ni ñu ko mënee nag tey yaakaar yàlla nangul no yàlla na nangul te bon nangulee yàlla yàlla na yàlla ko gërëm loolu lañ ci sab léegi nag bi ñu ñëwee nga xam ne kon koor gi jeex na léegi li ñu wax ne aziyaamul majruur nga xam ne kon lan la ne xamee koor gu nangu loolu day day day mën a am jeexital ci cër yi mooy ci organes yi nga xam ne weeru koor bu teroo ñiy jàng day bari ñi salaatu ala nabi day bari ñi saraxa day bari mboolem ñi naafila julli day bari bu boobaa nag lan la ne xame ne kii kat koor gi kat jël na ci bind bu toll ne moom kat li mu doon def yég na ko mooy bu koor gi jàllee dana gis jeexital boobu mu marqué ci ay cëram maanaam ba làgg kon dañu daal xam ne kon kii ni mu fonk woon njàngum alxuraan ci biir koor gi bi mu koree kon continué na njàngum alxuraan waaye kii ni mu sa fonk woon joxe aw ñam ci weeru koor gi. di koor ga jalle ma nga tagot loolu fonk na ko waaye kii ni fonk won ci naafile ci bi weeru koor gi bi koor ga jalle fonk na loola ndax yoy mi nga am kon yoy lañ war lañ fasiyene yéene li li am ci waxtu doonte xat taar na lu bari waaye ñu indi ci ab ab ab jàngat waxtaan wu tuuti woo xam dañ koy duggal ci bir jotaay bi waaye da ci bari ño xamne bu koor xasse jàll sen pastéefu jaamu yalla day manki lu bare bare bare bare bare moom comme jàpp nañu kon jaamu yàlla gi moom ci weeru koor la mën a am mooy fi ne bari waa na ñoo xam ne kalaasu jaaj njaay gi kaamil alxuraan bi ñu yoroon ci koor gi keroog bi weeru koor gi feeñee lënd ubaat kaamil ba teg ko ci barab lay wet lënd ak poussière na koo xam ne weeru koor gi ba ni weer jeexee bu julli joxee naafila du tardi benn yoon naafila doon lu rakk yi bari ba doon mën a naafila fukki rakk ak ñett ak yu ci tegu ginnaaw farata ji waaye keroog bi nga xam ne ne weeru koor yi feeñ na keroog la mujj dem ci jàkk yi nafila loolu it bokk na ci li nga xam ne mandarga mu ne xoole ba am kii li mu doon def bàyyi na ko xel wala bàyyiwu xel am na koo xam ne bi koor gi teroo fu mu toll mi ngi jënd suukar di ko joxe li wàcc laahi mu ngi jënd tàndarma di ko jox li wàcc laahi mi ngi jënd ak ndawal ko jox li wàcc laahi mi ngi jënd ceeb di ko jox li wàcc laahi mi ngi dimbale mi ngi saraxe li wàcc laahi waaye keroog bi weeru koor yi feeñee la bàyyi loola loolu itam mbokk yi day fekk nit bu la defee defaloo dara dañuy bëgg nga tagguto ca ngir bo ci joggé def ko bind bo xamné li kat dama ci nekk sax ba kër wër du fekkat kon yoy ko xet ba xamné kon lepp lu way daan def ci mboolem xet xibaadulaa yi yalla ci wër koor kon bi nga koré do da wara sax ci say yaram sax ci say cër waye nak nga di ko nga di ko fas di ko jëfee na ci légui nak li nga xamné moy salatu rahim bu ne salatu rahim mooy la jokk ak bokk jokk ak bokk da fay mëna dugg ci mawlahu bobu waxtane ndax ñu ngi ko waxee saa su nekk nit amul lu dul mbokkam jullit bi amul lu dul mbokkum jullitam te yàlla mi nga xam ne moo nu sàkk bu ko neef neexoon def na bàyyi ma wala mu def na nabaat gàncax wala mu def na aljawu muy muy muy air bi ci diggante asamaan suuf waaye yëpp defu ko bu ko neexoon def na ay xeer waaye danoo def ñuy ay jullit ñoo xam ne dañ koy jaamu dafa bëgg ñu di ko jaamu ndax wax ne man yàlla kat. maa leen sàkk waaye nag wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduuni maa uriidu minhum min rizqin wa maa uriidu an yut'imuuni innal abraara lafii xawtin matin man kat binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma kon ndeke yàlla li bëgg ci ñun mooy ñu jaamu ko jaamu googu yi nag la jiitu mooy doomu aadama bi day war a xam ne moom bi mu ne asadu an laa ilaaha illallaah wa asadu anna muhammadan rasulullah gëm ne moom amul benn buur bu yàlla yàlla rek moo di buuram waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mii kat ndawul yàlla yàllaa ko yónni ci mbindéef yi mu woote ne man kat yàllaa ma yàllaa ma ma woo leen ci jëmale ci yoon yàlla nga gëm ne yónent bi kat mooy mooy sama yónent waaye nga gëm ne nag alquranu karim bii mooy sama téere bi may artiwo mooy wax yàlla li yàlla bëgg ma def ko man jullit bi mi ngi ci biir alquranu karim waaye li yàlla bañ ma def ko man jullit bi mi ngi ci mu tere ma ko atiiu wa atiiu rasuula daa xam ne na ma topp man yàlla waaye na ngeen topp sama ndaw li muy muy sama yoon bi nga xam ne moom laay yónni woote ne yàlla mooma yónni ci yéen nee na ngeen jaar ci yoon wi wa anna haasa siraat mustaqim fattabi'uhu kon yoon woowu nag min ci jaaree dafa am ay arkaan mooy ba ci njëkk bi nga amee gëm-gëm yow nga xam ne yow gëm nga ne yàlla mooy mooy buur bi la moom moo lay indi moo la fiy waaye gëm nga ne yónni bii ndaw lu yàllaa ko yoon ci lu mu la wax lépp nag wamaa nte xanaa waa amul lenn loo xam ne da koy wax teg ko ci bana bakkanam lépp lu wax rek yàlla bàyyi ko nga gëm loolu nga gëm ni ne alxuraan jii wax yàlla alxuraan wax yàlla wala innama ana basarun mislukum yuuhaa ilayya annamaa ilaahukum ilaahun waahidun kon yàlla moo yeewankal yonent bi yenkewal ko def ko al yuuhaa muy jël alxuraan di ko yón Seydina Jibril mu ñëw ci moom mu di ko wàcce te boo bindoon alxuraan yonent bi du ko xam boo bindoon aw turam du ko xam boo bindoon tur yaam du ko xam waaye yàlla mooy wàcc ma al ay alxuraan yi muy ñëw ci bindam mu di ko jàng saxaaba yi ba ci ñun ñii nga gëm loolu waaye nga gëm ne bis benn dëgmal muy bisimilah yamal yamal yamal axiri muy bis mujj ba bis mujj ba donte bis la boo xam ne ñëw na ci alxuraan miraaran ñu ngi koy tudd saa su nekk waaye bari waa na ñoo xam ne tudd gi rek lañ ci am mais gëmuñu bis bu am na loolu nit ki da ngaa war a gëm ne am na bi nga ko gëmee nag nga gëm ne kon yàlla moo dëkk waaye day gëm ne ba des mooy nga def ki nga xam ne yéen a bokk pas-pas boobu nga xam ne gëm nga lii mu gëm ko yàlla ne ni kooku ay bokk ngeen fi la bokk njëkk a tàmbalee loolu mooy innamal mu'minuuna ixwatun kon yéen julli way gëm yëpp ay bokk ngeen léegi mel ne kon dana ko yàlla ñun bindoon ay bokk lan lan war a suyee mu ne fa bay aslihu bayna ko mooy da ngeen fex ba seen diggante yi ngeen nal ko mooy ngeen rafetal ko léegi nag mbokk yi boo xoolee jullit ñi buñ ànd woon nga xam ne kenn ëpp leen buna andon man ko don ben dimbalante man dana am ben puissance bo xamne ben mbolo du ko am waye nak ñak and waral na ñu new do new do ko xamne ne ba yeferi ep ëpp ep ëpp leen doole di leen faagaagal boo demee ci rew yi arab yi sun ko xam réew yi lu mena ne Israël yu mena ne nit yoyu ngiss ni ni ni yeferi di faagaagal jullit ñi li ko wara moy ñak and ànd jullit ñaka ñaka ben benn jullit ñi koy waral lol nak lanu yalla di bañal yonent bi dina ko bañal sëriñ bi dina ko bañal bëgg ñu ñu ñu ñu ñu ànd nekk benn te jàppalante te jëm yàlla ji tax ba tax na mu ne kon yéen jullit ñëpp ay bokk ngeen kon la gën mooy fa asra bayna axawaykum ñu ne ko kon bu ñu defee loolu lan la lan mën a tàqalaa lakum turhamuun kon defee rek da ngeen ragal te boo ëllëgee bu ngeen ragal yàlla yàlla dañ leen kon loolu bokk na ci Maodo bi nga xam ne war nañ ko bay xel ñun jullit ñi waaye nag bu nga demaat ca kanam mu ne la aqrabul awlaa bu ne aqrabul awla mooy ki gën a jege wala li gën a jege moo gën a yay ndax jullit mën naa nekk Sénégal jullit nekk France jullit nekk Amérique jullit nekk Israël jullit nekk Arabie Saoudi waaye teewul ñoom comme ñoo bokk luñ gëm rek ay bokk lañ waaye sore nañ sore goo xam ne buñ bëggee dimbalante mën naa yomb mën naa bañ yomb tey ñàkk yomb ko sax mooy mooy gën a jàppale waaye ñu ne kon ay bokk ngeen waaye da fexe ba. ngeen boo yéene mooy nga di ko yéene yàlla di def ci moom yërmaan te boo ko yéene musiba ndax am na ñoo xam day wax ne jullit la nekk Sénégal am ko ne jullit nekk France léegi jullit ñi nekk France duñ yéene jullit bi nekk Sénégal jàmm wala jullit bi nekk Sénégal du yéene jullit bi nekk France jàmm loolu bokk na ci li nga xam du dimbalante kon jullit bi nekk France bu dëggee ne jullit bi nekk Sénégal wala am na musiba mu lépp mu fa jëm si da ko war a ñaanal yàlla muccal ko ca musiba moomee wala bu ko ab gàllankoor dalee mu ñaan yàlla jéggal ko loolee loolu mooy moo loolu loolu dox seen diggante waaye bi gën a jege nag mooy jullit bi nga xam ne yéen a bokk am réew kooku it moo gën a jege ki nga xam ne ab jullit la comme yow waaye bokkul am réew ki nga bokkul réew nag moom da ngay war a bokk yéene bokk pas-pas bokk pexe yéen bokk benn réew bokk benn président amaa yéen bokk benn tarixa amaa bokkul waaye yéen bokk benn jubluwaay muy yonti mooy seen mooy seen wasila waye yalla moy seen bour alquran moy seen attewukaay te gem ngeen bis bi da ngeen kon bok moy bok gëna jégé a jege nga xam gem ngeen waye sore ngeen waye bok yi nak am geneen bok gu gëna jégé moy ki nga bokkal réseau wala ki nga bokkal dëkk ba ci ki nga bokkal kër ba ki nga bokkal benn bay wala ngeen bok benn yaay wala ngeen bok benn borom kër wala ngeen bokk benn benn wasil yëpp day bok gëna jégé waye li bëgg wax ra moy war yalla wax ne bay wu tank da ngay massé gem am yéene ci julli ñi ñi nga bokkul ñep waye ki nga xane ne yéen yéen nga xane sa saa dabal mu na ha wala bo geesoo gis ko wala yeen bokk ben robot bu ngeen naani wala yeen bokk ben marché bu ngeen xey wala yeen bokk jenn jàkk ju ngeen julli wala yeen yeen bokk ben ndab bu ngeen bu ngeen bu ngeen lekkee kooka moom moo gën a ci ñële lolé wax né aqrabul awla ki gëna jëgë gëna yayi waye ñu gis né légui dimbulante gi ci jullit ñi dafa néew lool donte wéro koor wi mom jambar lañ ci jambar lañ ci lool ndax ñu bari ñi ngi joxe ay ñam togo ay ndogo diko ko joxe ñeen ñi ngi dem ci quartier yi di dajal liñ leen jox ñii ñi ngi safay ot di ko yóbbul loolu lu am important lu baax la daa daa baax ci jamono jëpp waaye daa rawati weeru koor tam waaye téewul nag bu weeru koor jàllee loolu da nga caa war a jëlee ab jàngat ab tàggatu boo xam ne daa war a lakk ci say cër nga xam ne man damaa war di dimbalante fu ma toll kon yooyu nan di ko bàyyi xel ne dimbalante yëmul rek ci weeru koor def lu baax yemul rek ci weeru koor sadaxa muy saraxe yëmul rek weeru koor ndax koor day jeex waaye naafila du jeex koor day jeex waye jang alquran du jeex koor da jeex waye joxe awñam du jeex koor da jeex waye saraxé du jeex koor da jeex wax lu baax yaamal bu rafet du jeex kon yoyu ab tagatu la buñ ci wara a estas waye bu jóge na ñu man ko diko diko di ko tar ci sawal ba kéro ñu dem ci euh, euh, euh, sax sax baa lépp dañ ko dañ ko tagat moy dañ ko war bi nga bi nga ci koor gi nga dugg weeru koor yi da nga war la nga war def ci weeru weeru koor ñu diko lenn ci nek lag ci say cër nga diko def ba nga ag ba ba nga àggat sambaan nga xam ne boo génn sambaan duggaat rajab duggaat duggaat koor bu baax koor du la jaaxal du tuuti am benn loo xam waaye am na ñoo xam fi ne saa buñ koree saa buñ koree rek mboolem daal ci ay xeet xibaar daal dañ koy teg bu nee ba koor ñëwaat na ñu bëgg ca tàgguwaat loolu mooy waral leen léeg-léeg muy metti ci ñenn ñi kon loolu nan di ko bàyyi xel bu baax a baax xam ne lu am solo ndax yàlla bi mu nu indee ci adduna wax naa ko may tàmbali daa wax ne bind ma nit ak jinn lu dul ñu jaamu diggante bi nit ki gën jamono ba keroog muy faatu diggante boobu li fi xaj daa bëriwut te li war a jariñu ci àllaaxira ci diggante boobu la ko war a defee te da wax ne jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi yàlla nag am na baax na waaye xibaadullahi da koo gën mooy di jaamu yàlla ki nit ki koy topp te doo ko jaamu doo ko déggal topp yàlla nag mooy julli ak war ak aj maag nag askan yëpp topp yàlla waaye xibaadullahi moom ci jaamu yàlla yi mooy da fexe ba yàlla na ne na ngeen ma na ngeen na ngeen ma jox ñu ne ko yàlla yow soxla woo aw ñam soxla woo ndox soxla woo dara soxla woo mu ne a ah, kay am na sama jaam boo xam ne mi ngi dend ak yow te lompoñ na lottu na am na lu bëgg te mën nga ko caa dimbale te dimbale ko ci kon yooyu mooy xibaadulaay ci jaam yàlla yi kon ñu war na ci góorgóor dimbalante te mbokk yi ak mbokk a ngi yàqu te li ko yàq doon lu lu lu lu gàtt muy ñàkk dimbale ki nga war a dimbale ñàkk dimbale ki nga war a dimbale ndax ndimbal du tuuti du rëy ki nga war a dimbale dimbale ko wàññiwul dara te wax na ku dimul ci àllarba sëriñ bi da nga dem ci dibeeri na mooy képp koo deful ki nga war a defal danga def sa alal fu dem te boo ëllëgee ginnaaw gëm nga ne sëñ Tuubaa moo waxoon ne laa taamanoo makaida seytaan inda firaaqi ruuhi la jusmaan bu leen naagu mukk ci pexam saytaane ba keroog seen yàpp yaram tàggadi ko seen ruug yi ndax saytaane nit ki gane jamono ba keroog ñu koy teg ci kus bàmmeel da koy topp di ko faaga di ko yàqal léegi nag bu la yàlla dénkee dara ci alal lu mu néew néew wala mu dénk dara ci lu mu néew néew wala mu dénk ci kattanu yaram lu mu néew néew sëñ bi nee na fexeel ba dimbali ci sa mbokkum jullit léegi ñaata bokk ñu yàqu ñaata bokk ñu yàqu ca la ko waral la ko yàq du ñàkk a jaamu yàlla du ñàkk dara ñàkk dimbale kii nga war dimbal te dimbaloo ko te am na ne gàññi moom amut te muy as gor comme yow di ab julli comme te am na ñoo xam ne mënuñoo laaj gis boo gis sax li ñu wax sakaato muy asaka bi ko yàlla santaane farataale ci ab jullit ñu war ko génn ci ci àllam bi muy daa wax ne njëkkeel ci almasakin almasakin mooy ki nga xam ne am na waaye amul lu ko doy hmm. Mhm, mhm. waaw bu ko defee kook ngay bàyyi xel almasaakin ki nga xam ne am na waaye amul lu ko doy nga xam ne amul lu ko doy waaye mënut a laaj mënut a laaj bu ko defee ba noppi na nga dem ci faqir bi bu kooku jàll nga faqir faqir mooy ki nga xam ne amul waaye mën naa laaj kooku mooy deuxième bi ki njëkk mooy ki nga xam ne masaakin mooy kooku am na waaye amul lu ko doy maanaam masala am na njëlul tey waaye amul njëlul suba. tay as borom so xal munta laaji kon koku la yalla jëk ci as sakat bi léegi ne yow mi xam nak am nga dara lu upp sa añum tay ak sa añum suba kon war nga dimbali ki nga xam ne sa mbokum jullit la donte bokku len bay donte bokku way sa mbokum jullit rek sëriñ bi len dimbali ko ci la nga yor loolu yalla moko jëk sa daal kon yoy war nañ diko bayyi xel bax tay lu bare mi ngi am lu bare gi am te ma na alal kenn du koy balé kenn du yu balé ko kenn du dé mu top la ndax ki nga xam ne dama bañ ba bañ ko moom yàlla wax ne nit ki saa faatoo doon dafa bàyyoon aw fas ab sareet wala mbaay fa oto sax loolu amatul droit dañ daw amatul droit daw kenn di ci jariñu lu dul danoo leen jox ko ñu ko ay wàllu doonam nga ko nit ki saa bu mu bari bari saa bu faatoo la koy topp mooy lan koy waajalee lan koy waajalee ak lan koy dajalee sa sa sa san ko saraxal sax waruñu koo génne ci alalam loolu ndax sarax sax coobarewu ña ay ak ñam bàyyi ginnaaw la waye moom lako ci top ci la ci islam nangu mooy lan koy wajale walu wàllu cangaay ak ñay fay ñakoy koy ñakoy sang yoy kep mu ci kenn waaye li des lépp yàlla ne da koy yone boole ko len ko jox ko ay wirasam ñi ko ra doon kon nekk ni ki lu bari bari lam ci am moy lim jital ci bammelam lim jital ci bammelam alquran da wax ne wabtaqi fi ma ataka dar alakhirah wala tansa nasibaka min dunya wa asin kama asana ilega wa tabqi fazal fil ard nga ya, xamne ko nit ki yalla ne na ngay jaamu yalla di jaamu yalla ba japp na yimi kat bo fi bo fi yendu do fana wala boo fanaan do do yendu ci gattal waye na nga defal sa alakhir nak ba japp do fi joge nak wala nga def sa adduna ba japp do fi joge waye kon leela jital kon legi kon mu nak alakhir joji nak kat lam nangu moy yobante waye nangu di bàle lim nangu moy yobante waye nangu di bàle ginnaaw nag booy dem do kuy balé kon da ngay fexé ba sa yobante nay tégalo moy nay tégalo nay tégalo te yobante moy lan mooy doo jël alal ji di ko sànni ndax xamu foo ko sànni mais da koy def ci jaamu yàlla yi tey ci yaakaar ngërëmul yàlla li waxoon nag ci njàmbaaru seytaane ci yàq lu baax àgg na ci sax am na ñoo xam ne bëgg nañu def lu baax waaye saa bu def lu baax seytaan da leen koy gisloo maanaam da leen koy gisloo naa ne li ngeen def gis leen ko li ngeen def gis leen ko mooy demal nga wuti ab ab médiatisé ñu médiatisé la wane ko fekk yow mi mi gisoo sa xool ne la lii wane ko ba nit ñi xam ne yaa koy def saa bu toq xam googu amee ci yow rek sëñ Tuubaa ne yàlla amul ci soxla wa robbama ibadatun kasira xad afsada nasul xaqira nee bari waa koy jaamu yàlla waaye génnee ko gu néew da ko yàq mooy nit ki mën nay def lu baax di def lu baax ba mat quatre vingt mu fukk yi mujjee rek mu gis ci ne man kat lii def lu baax rek gis ko ci rek yàlla amul ci soxla moo tax moo tax ñu ne kon loolu loolu yóbbul fekk bari waa na xam ne mi ngi def lu baax waaye la def saa ki mu ko defal saa bu ko waxul rek ci jotaay rek bu ëllëgee bu ko war a defal lu ko defal kon lam ci doon bëgg mooy bu toogee wax ko te loolu am ba tey day dugg kon nit ki la mooy nga suñ tubaane woon fa innamal madhu awit sama yëkkoon min baxi tajribi yow ki lay tagg ak ki lay ŋàññi yemale ki ñëpp yëpp yow yow li nga def jëmmi yàlla mi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy fay bu ëllëgee na na tax nga di ko def loolu itam suñ tubaa jàngal ndax sëñ Tuubaa kenn ku ne xam na ne musta xam am na donte moo ëppoon ay noonu ci waaye musta xam am noonam moom sëñ Tuubaa moo ëppoon ay noonu ci adduna waaye musta xam noonam mooy ñi ko daan gàllankoor na suuf lan toll mënuñ ci moom dara di ko yéene lu bon sax su nekk waaye bi mu demee ba suñu borom xamal ko ne Ahmadul Xadim ñii kat seen pexe jeex na takk ci yow pexe yu bon yéen laloon lépp yëpp naax man soo ko naa ko naax sa léegi loo bëggul sëñ Tuubaa daa ci gën ñëpp kon kooku koo xamatul amatul te am noonu donte amoon na ko xam fawtu an ada tour li wacc man nak gis eh, eh, eh? ci lan ko def lon nak teew lu sa am rek bokko nako ñoom lu sa am rek señ tuwa lu sa am da ko yewul ci ay bokkam ndax ben way ka neena ko defar ko sa sa sa bokk defar aw jamm ba ñepp jang japp ci jamm koku nak buñ ko yaakaare kon war nañu di dimbalante bu baax ci li nu am alal dimbalante nak ñaar rek la bo wala ñet la moy alal am xel ak ak ak ak kartanu yaram ki nga wara dimbali ci alal ji la yalla jox dimbali ko ci te yalla tax waye ki nga wara dimbali ci xel dimbali ko ci te yalla tax waye ki mu war a dimbali ci carton yaram yi dimbali ko ci yalla don dang koy gasal kambu wala dang koy takal aw sàkket wala dang koy gajal ak garab waye dang ko defal te jëm yalla ji rek tax ki nga war a dimbali ci ala yi nam defal ko ko don dang ko dina saako tiep don dang ko dina ab sareet dang ko dina aw fas danga ko dina auto dang ko sa tamang ci num tu mandon defal ko ko yow bul xol yàq ga wala bul xol ëllëg da la ëpp bu nañu yow fexal ba bu ëllëg yamal xiyam yalla na la yow kat la nga defaroon jaam sangam diw sangam ci adduna te man sama jëmm ji taxoon kaay ma waxal la ma la cee fayee